ci yéenekaay ma ci ànd ak Boucar Ndour maa ngi lay siyaare kon maam Omar maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokku Sénégal rawatina mbokku internet TV yëpp yëpp yëpp yëpp euh, ko waxee rek tey nekk mercredi 17 août 2022 ñu ñëw kenn yéenekaay ñu ubbee ko ak journal bi nga xamante ne nii Boucar moom mooy journal bu suñu làmb ci xëtam bu jëkk mu dalal Malick Gueye di rakk ci Mbaye Gueye premier tigre de fas mu bokk lool moom itamit ci écurie bu fas def lu rëy ci Fass ci wàllu sécurité mu yëkkati ay kàddoom nag di ko jëmale ci en général ni Fass di doxee nee na nag ku bëgg a dem na dem ku bëgg toog na toog. ku bëgga dem na dem ku bëgg toog toog loolu waxi euh, Malick Gueye la nekk frère si ki nga xamante ni tey moo di Moustapha Gueye ancien tigre de Fass dafa mel ni moom moom moom moom moom moom euh, mii nag moom Malick Gueye nag dafa mel ni yaakaar naa ne dafa mel ni nekk na mës na nekk sax euh, secrétaire général bu Fass mm-hmm. waaye ak lu mën a xew rek dafa mel ni daal yëkkati na ay kàddu dafa mel ni nag journal bi sekk na ak moom Omar waxtaan bi si njëkk daal wala poñ bi mu njëkk a wax daal mooy que ne Fass daal dem ku bëgg a toog toog loolu nag mu ngi ko waxee mu ngi sekk waxtaan bi ak xamante ni rek moo di Abdoulaye Dembélé Abdoulaye Dembélé la ko sekkal Boucar Ndour waaye nag leneen la nga xamante ne ni yëkkati na ko muy ay kàddu moom nee na am na erreur bu am ci di ci li nga xamante moom mooy fusion bi Fass ak Ndakaar fusion Fass Ndakaaru nee na ab erreur la maanaam tey li ñu naan wutee gis-gis moo waral marchandise di jar waaye gis-gisu liggéey moom ci équipe bi nga xamante tey dañoo def fusion Fass ak Ndakaaru moom jàpp na ne bu mag a mag a mag la parce que bu ko soñoon tey ñaari équipe daal maanaam ku nekk day demal boppam. nee na tamit gestion écurie Fass moom. dafa catastrophique de trop. gestion bi dafa catastrophique ba tax na daal ak lu mën a xew rek dafa mel ni moo tax nag saison prochaine moom ñu bëgg a li nga xamante ni rek mooy euh, affilié li nga xamante ni moo di écurie Fass fële nga xamante ni rek moo di ca diwaanu CNG kon moom nag dafa mel ni fi mu toll moom bëgg-bëggam daal mooy maanaam Fass demal boppam écurie Ndakaaru demal boppam. ah mais nag bu kër bu ñu xoolee ren écurie Fass seen eh, seen taxawaay ci làmb ji am na solo de bëri bu ñu amee defet matul ñett wala ñeent. waaw en ak lu mën a xew rek li ma ko waxee rek maanaam fusion Fass Ndakaaru bu moom euh, ñu bëri bokk avantage lañ si gis mais comme ni ñu ko waxee rek wutee gis-gis mooy waral marchandise di jar gis-gisu Malick mi di Malick Gueye moom mooy que ne Fass daal demal boppam Ndakaaru demal boppam parce que moom jàpp na ne Fass écurie bu mag a mag a mag la boo xamante dem di booloo kenn dafa war a demal boppam ngeen ne tamit dinañu tegaat Fass ca palaasam. waaw dinañ ko tegaat ci raay yi dinañ fexe daal def li nga xamante ni rek moo di maanaam tey euh, sauvegarder li nga xamante ni rek maanaam tey moom la fi euh, mbay gay bàyyi ak lu mu leen mën a jaral tamit ak lu mu lu mu leen mën a coûter tamit dinañ ko def maanaam bëgg-bëggam daal mooy que ne Fass daal demal boppam. Fass demal boppam mooy bëgg-bëggu ki nga xamante ni moom mooy Malick Gueye yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee rek wu ca gis-gis mooy waral marchandise di jaar Ibrahima Diop. alaaji Ibrahima Diop sax la ñuy wax boroom Kajoor production ñëw na nag indil ñu derby Fass pikin classico bu amatul na fixé nañu date bi le 5 février 2023 Gris Bordeaux ak Ama Baldé Gris Bordeaux Ama Baldé mu war a nekk nag combat bu neex a neex a neex boo xamante ni yi ñu ngi si xaarandi depuis démb Omar gis nga ñi nga xamante ni mooy ñoo ñoom ñoo si addu ci boobu la combat ah Kajoor production nag moo ko taxawal fixé nañ date bi nag ah, pour le 5 février incha allah gars yi dafa mel ni seen yaram dafa tàng Omar. seen yaram dafa tàng jër fi mu toll nii parce que nag bu ko lii dafay dekki làmb ndaxte saison ba jeex te derby bi gisuñu ko fi Fass ak Pikine yaakaar naa ne saison boobu du saison wu dara. waaw saison buy neex la rek Omar lii moom day woon rek ne déwén moom ah, CNG dina am du pain sur la place ni ñu ko waxee waaye muy écrit yi muy euh, coach yi. entraîneurs yi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ak dirigeants yi bu rawatina nag mbër yi nga xamante ni tey ñoom ñooy les principaux concernés ah, ndaaw nañu waajal daal yokku cere doole ñeex. li wóor te wóor moom mooy balaa balaa février 2023 incha allah dina bëri ay combat espoir u Fass Pikine yu bëree bëri bëri parce que combat bi dafay lancer waat derby bi. waaw day lancer waat derby yi rek maanaam lii moom même bu nekkul ay derby sax maanaam ay combat rek yoo xamante ni rek maanaam day dëkkilaat lamb rek day dundalaat lamb rek lamb mën a dellu fa mu que tamit ñit ñi namm nañ ko. nit ñi mën nañu ko Boucar Ndour yàlla ñu ci suñu borom bi yóbbu ak jàmm ñu tal ko te fekkee ko kenn bañ a manqué ñu def ko ci fair play dans les règles leneen li nga xamante ne gis nañu ko mooy soq bu ndaw ak talfa taxaw na mu nekk combat espoir nekk combat boo xamante ne nii derbi la tamit pikin ak Parcelles. Pikine ak parcelle ku ne xam na ne seen i mbir du mën a yomb lool lool lool Omar Sokh bu ndaw nekk frère Sokh moom la nag ak tal Talfa ah ñaari mbër yoo xamante ni tey Omar daa mel ni kenn déggagul mu ñal de combat bi nag combat bu nara nara nara nara neex la war doon Omar. waaw Fallou Ndiaye tamit ñëw na ak ñun indil ñu choc bu am solo Giro ak Ndiaye Tine mu nekk combat boo xamante ne nii ñoom ñaar ñëpp ku Omar wane boo a yéex a yéex waaye la euh, ñaari mbër yooyu tey Omar combat boobu moom ku ci génn da war a yëgg digganteem ak Baye Mandione Junior ñu ngi koy fàttaliku xale la boo xamante ne ni am na avenir trop trop trop ci làmb Tapha Tine Lac de Guiers numéro 2 boo xamante ne ni bëri woon nañu ca kalaaf ba Lac de Guiers daan ko revanche nag boo xamante ne ni ba léegi nit ñi ñu ngi koy xaar ndax ñaari mbëri fi mu toll nii ku leen xool rek am envie boole leen waaw revanche la boo xamante ni tey Omar da passé naa ñor sax xam naa ne fi mu toll nii moom léegi ci guitare kon nag nañ fexe daal tëgg boobu la combat man bëgg naa ñu tëgg ko lool lool lool lool comme ça ku fa génn sax li nga mën a laal ak Gris ak Ama Baldé pourquoi pas waaye daal ak lu mën a xew rek ñaari mbër yi moom Omar ku leen boole am combat bu neex Reug Reug Sa ñi ngi am yaakaar ñu bëri ci mois de mars waaw dafa mel ni dañ koy pousse ne parce que février lañ waxoon waaye dafa mel ni daal si kaw pousse si pousse date bi dafa mel ni promoteur bi si loolu la taxaw jamono ji xam naa ne a a xew tamit loolu yaakaar naa ne tamit day handicapé mbër yi parce que ñoom la seen combat yi ñu taxaw kon ñoom tey ak lu mën a xew ñoom teel a bëri wala bëri début saison moo leen di arrangé ñu mën a yeewu ko nga xam ne biir saison bi wala fin de saison dinañ mën a lijjantawaat beneen combat na ban

mook Quench ku ko tëgg di nga tëgg combat bu neex wala mook Moussa Ndoye ça dépendra rek waaye ak lu mën a xew daal adversaire moom ñàkk ko jëm moo gën wala moo ko jën kay tamit loolu combat bu neex la combat bu kon daa combat ñaar neem la même moom moom moom ak Mor Anta sax combat la parce que rek bu ko Mor Anta dañ ko war a boolewaat ci loo bi nga xamante ni fa la nekk parce que yombul mbër jógee Thiès ñëw Dakar imposé ba am benn wala mook caat boo booy bambara loolu yëpp ay combat yu neex yoo xamante boo dàqati boo ko tëggee dina neex moo ko moo muur anta bu Thiès tamit ko tëgg gis combat bu neex kon yaakaar naa li ma ko waxee rek moom adversaire moom mhm. ñàkk ko jamono ji kon fu toll ni daal peut-être si promoteurs lay des dafa mel ni association FILS ci bopp ba Bamba Mboup moo fa nekk di former mbëri ci garde rapproché di former mbëri ci élevage ci agriculture ak yeneen ak yeneen nañu nag li nga xamante ne nii ay financement lu toll ci 3 millions de francs CFA yaakaar naa ni mi ngi ciy taxaw di jàppale mbëri pour mbër yi gën a am liggéey gën a am ci lu ñu jàpp. Boucar ci diwaanu Adrien Senghor itamit gis nañu galaa yi nga xamante ne mi nga fay am gis nañu làmb ji ni muy demee foofu. lamb ji ni muy demee foofu noonu Omar Adrien Senghor dafa mel ni nag tey génne nañ fa lu tollook dix-neuf promoteurs maanaam tey tëgg nañ fa lamb ñettey jigéen tëgg nañ fa Omar waaye nag dafa mel ni euh, lu tollook dix-sept vainqueurs tamit maanaam tey daanaka rek am na foofu noonu si li nga xamante ne mooy maanaam tey cinq lutteurs yoo xamante ni tey gagné nañ plus de deux galas parce que boo seetloo tey ku si mel ni tey euh, euh, Ablaye Diop moo ëpp maanaam tey li mu fa teg. ci ci ci ci ci loolu yëpp ci xalima Abdoulaye Dieye la waaye X9 daal ak da leen ma woowee Moget kon Moget war na ñoom ku si nekk daal jël na ko trois fois Boy Maroon tam gis na ko jël na ko deux fois ak yeneen mbër yoo xamante tey ñii jël nañ ko deux fois ñii jël nañ ko benn yoon Omar. yaakaar naa ne am na solo Boucar Ndour te lii def ciy neex ci ñoom ñi nga xamante ne ñi nga fay dem bu saison bi tëjee ñu leen di wax ñu leen di rappeler ku fa ëppale lim fa jël wala kan mooy buuru Adrien Senghor ci at boobu daf leen di gën a yokk jom daf leen di gën a motiver. leneen li nga xamante ne gis nañu koy Boucar ci journal bu record ba tey rek ci combat bi nga xamante ne taxaw na démb diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux ci mois de février bi. derby Fass Pikine am na nag ñoo xamante ne àdduna ñu ci ku ci mel ni Abdou Bakhoum di ménager Ama Baldé ci ay kàddoom yëkkati na ci ay kàddoom parce que ñoom lañu wone woon ñoom ñoo doon signé loolu nga xamante ni rek tey Omar moo nekk tey contrat ya ngir yi ah, ñu xaatim ngir rek jëmal boobu la combat Abdou Bakhoum nag li muy jàpp mooy que ne c'est un combat de gladiateur kon loolu dina mën a neex Omar waaye ak lu mu ne Khalifa Dia yaakaar na moom manaan sori Gris Bordeaux la boo xamante ni tey Fass ah, mën a yomb Ibrahima Diop nag bi tëgg combat boobu noonu li muy bëgg-bëggam daal mooy combat bi ñu tenir ko mois de février Omar incha allahu rabbi mois de février incha allahu rabbi waaye Gaston production ci benn wet bi Boucar décroché ay combat yu am solo ndaxte Franc la jël daal du boole ak Forza Marley mu boole ko ak ki nga xamante ne ni moom mooy Sokh mu nekk combat yoo xamante ne ni combat yu amam solo la ci wàllu làmb ndaxte antichambre VIP yi ñi ma la fi limal nii Boucar dañoo bokk ci ñu ko mën a dajji ba mu dajjee ko dugg. dañ ko dañ si bokk Omar bu baax baax a baax moo tax ñii lañ war a gën a prôné pour di leen tëgg parce que boo seetloo ñi ñuy tuddee VIP yi ku si mel ñeneen ak ñeneen tey mënatuñoo bëri ñaar ba ñetti at te décroché wuñu kon nag relève bi tey Omar ñooñu lañ war a gën a prôné ah, promouvoir leen tëggal leen làmb booster leen ñu mën a nekk ay champion te yaakaar naa ne combat yi Gaston bi nga taxawal combat yu neex la parce que ku ne xam na ne Forza ak Franc moom du mën a yomb soxmaar la derby Pikine Géejawaay la kon yooyu le combat incha allah rabi yaakaar na ne dina neex onze combat onze victoire Franc toujours invaincu Forza da koy wàccee waawam déet nañu yoon yàgg. nañu yoon yàgg Boucar làmb la joo xamante ne ni lépp mën na ci am parce que nag ay xale lañ yoo xamante ne ni xale am avenir lañ Baye Mandiaye freiné ci na Baye non Kaw Gourdin freiné ci na Baye Kaw Gourdin nag dafa aay ci xale yi nga xamante ne ñu ngi déclenché. ni mu ko defee woon caatu daaw dafa noonu la ko defee Baye Mandiaye te xam naa ne du yem foofu noonu parce que mbër la boo xamante ni tey Omar gars yi dañ koy xeeb boo xamante ni tey yaakaar naa ne c'est de l'Ocuy d'or ah, ni li ñuy naan méfie-toi de l'Ocuy d'or Omar. demee ah, en tout cas daal la ko làmb bàyyi xel moom Kaw Gourdin. na ko làmb bàyyi xel moom Kaw Gourdin ndax xale la boo xamante ne nii xale la bu am avenir ci làmb Yékini Junior ci ko sonal torop torop torop jamono jii du kenn ku dul Fils de Balla ginnaaw bi mu daanee Gora Sock. waaw son sonal bi sax mën na ñàkk sonal bi. Mhm. mën na ñàkk parce que Yékini Junior depuis 2018 Omar bëriwul te bu bëggee bëri tamit maanaam wane ko fësalu ko parce que am na ay adversaires yu fi nekk yoo xamante ni tey war na mën a bëri ak ñoom si defet la jógee ba pare toog 4 ans wala le bientôt 5 ans bëriwul boo xoolee Malick Niang daanaka ko handicapé ba maanaam daanaka yàq carrière am parce que da nga nekk mbër am foo toll dañuy ñëw raw la di nga rawoon nit maanaam mu ne nekkoon ci kanamam mu ne sa ginnaaw yow nga am defet ba pare bu amee defet même bu wàccul da taxaw fi nga taxawoon boo année balancé nag ki nekkoon sa ginnaaw di bëri di daan Omar kooku bu yàggee dalay raw kon Yékini Junior yaakaar na ne Fils de Balla bu ko tëkkoo peut war na ko mën a tëkkoo bëri moom parce que Fils de koy bàyyi xel te xale la boo xamante ni te lambam day am coow kon yaakaar ne euh, Yékini Junior su fekkee ne bëgg na maanaam bëri mu ngi ci xelam wala bëgg na bëri wala bëgg na nekk champion ba léegi ci faaw mu bëree Boucar Ndour ñi muy bëreel na xam na ko bu fekkee ne Fils de Balla mi ngi ci xelam mën na ko jël bu fekkee ne ñoom Moussa Ndoye ñi ngi ci xelam mën na leen jël bu fekkee ne itamit ñi mu jàpp ne war naa mën a bëre ak ñoom bu ñooñu nangoo ni war nañoo mën a bëre promoteur bu ci intéressé war na leen mën a tëggal seen combat ñu daal di bëre yaakaar naa ni loolu moo gënoon a fës tey ci xët loolu moo gënoon a fës si xët yi Amar di la bëgg rek di la nuyuwaat di la ziarawaat di nuyuwaat mbokk Sénégal rawatina si àdduna bi Omar ndax jàmm si la lépp xaj saison bi nag tëj na si jàmm salaam Dakar ñu si sant yàlla di ñaanal promoteurs yi amateurs yi mbër yi acteurs lamb yëpp jàmm ak salaam déwén ñu fekkee ko si jàmm salaam. àll bi nag moom amul tëj moom ku ne xam ne àll bi moom dañuy mbapataat ba nawet bi di jeex ah waaye daal town moom fii waaye comme tëj na moom ñu ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal jàmm président CNG mi Bira Sène ak équipe bi yëpp di waxaat ne rek ñu defaat rétrospection xool. lii ñuur si sow bi ñu génnee ko ni mu ko waxee rek CNG moom quelque soit alpha day foog nit ñi di classe CNG dina am nit ñi di classe di dénigrer CNG même bu bira seen demee keneen ñëw tamit du tee nit ñi di classe CNG parce que am na yoo xamante ni tey bu amee CNG di ko def tey ñii ñi duñ ko rafetlu muy mbëri muy amateur yi kon nañ si gën a góorgóorlu xool daal li rafet ñu ñu ñu yokk ko lii ñaaw li lii li xaw Omar ñu jëm ko wàññi. yaakaar naa ne am na solo Boucar Ndour de eh, message bi jàll na te dégg nañu la.